benn opposant pour ñu commencé def Sénégal du ci jamonoy Senghor du ci jamonoy Abdou Diouf du ci jamonoy Ablaye C'est une honte parce que Sénégal dafa siggi woon ñu ne ñun rek ñoo fi des réew moo xam ne mii ci Afrique amul coup d'état démocratie yi ngi fiy dox bu baax mais li nga xam ne réew mi amoon na ko ci valeur en matière de liberté démocratie élection libre transparente lépp fi mu nekk Macky Sall mi ngi koy normal en tout cas ñu bëgg ko xamal

justice justice et c'est problème bi gën a rëy ci Sénégal mu am fi ala kulli al il faut que ñu mu def te moom xam na ko bu baax parce que xamante nañ kon nag yeewu askan bi li ñu def Ousmane Sonko mu ñaaw ñi ngi wax Sénégalais y a ngeen ci seen bët lu nekk def nañ ko nee nañ terroriste la nee rebelle la nee nañ rey côté la nee salafiste la lu nekk teg nañ ko Ousmane Sonko muy muñ boobu ba léegi ba tey jii yàlla defal ko li nga xam ne moom la ko def ci askan wi bu jógee adduna yëpp topp ko xale yëpp topp ko mais loolu il faut que ñu nangu ko loolu yàlla moo ko dogal mënu ci dara day sonal boppam na wut yeneen pexe mais du pexe yi moom moo ko ciy génne en tout cas ni euh, leen woo tey bis bu jot bis bu jot comme ni la ñuy doxalee ñu ne leen woo point de presse xool ba xam ñoom nan la ñuy def parce que mënuñu ko tere quand même

waroon na rus fi mu jaar yëpp les ko opposants mu daj ñëw ba fii muy def opposition yi di leen traité façon bi en tout cas ñun daal ngeen xam ne fa ñu nekkoon jógewuñ fa incha allah bis bu jot bu ko jaree dañ leen woo point de presse ngeen ñëw ñu waxtaan ñu xool nag réew mi moom moo ko moom wala askan wi moo ko moom ngeen